Macky ma ne ko waaw mais man je propose que parce que ñun euh, suñu magum lébu yi dañu ne boo ñëwee ci ak penc fekk ñëpp di xeex il y a deux possible nga dem ranger wu sur euh, à côté d'un camp di jàmmarloog l'autre camp ou l'inverse waaye sariyatul Muhammadiya nee na la posture la plus digne mooy nga féetewoo àtte alors ma ne ko kon euh, dama ci bëggoon dox tànku jàmm Macky Sall daal di d'accord sur le principe de la médiation ma daal di woo Cheikh Niass Cheikh Niass d'accord sur le principe de la médiation et mieux dafa ma woo bureau il était entouré de ses plus proches collaborateurs dont le directeur des programmes Oustaz Assane Diouf ba ñu waxtaanee ba noppi il était d'accord sur le principe de la médiation Macky Sall yabal benn ndaw je peux pas dire son nom ici kooku jox ñu rendez-vous dans un hôtel de la place Cheikh ñas ànd ak un de ses proches collaborateurs Jamra à travers ma personne ànd ak ku ma bokkal ndey ak bàyyi ana Pam Mbaye voilà kii laa àndaloon El Hadj Mbaye Guèye ah toogee ma posé question kii représenté état bi ma ne ko waaye yéen loo leen jotee ak Walfadjri lan moo leen naqari ci Walfadjri ba ngeen tëj signal bi un mois ferme mu ne ma wal boobu Cheikh Niass ñu toog di ma dégg di déglu mu ne wal fajiri dafa jalgati cahier de charge bi ma ne ko waa précisément ban pon ban ponk la jalgati mu ne dafa am article sàngam bu wax ni benn télévision au Sénégal publique ou privée boo xam ne xaatim na ak état cahier de charge bu mel ni amuloo droit bu ay manifestation publique de violence ñu ngay taal ñu ngay rey di am nga di ko teg en direct parce que dañu bañ ñeneen ña toog seen kër mu créer benn effet boule de neige di xiirtal xale yi ñuy converger vers ce lieu de violence violence bi di yokk di di jégg di di yokk loraange ji di di yokk nee na loolu Walfadjri daf ko jalgati alors mu ne ma looloo taxoon jëkkoon nañ ko jox au début de l'année premier avertissement par une privation de signal de dix jours mu récidivé waat après les échauffourées yi amoon Mbàkke daal di defaat direct di transmettre violence yi mu ne moo waral ñu dóor ko une sanction plus lourde donc au lieu de dix jours comme première fois bi ñu def ko un mois loolu la ma représentant représentant Macky Sall wax ma ne Cheikh Niass yow noo ko gisee li kii wax mu ne waa man de toute façon je sais que Walfadjri comme toutes les télés ont signé ce cahier de charge la waaye itam je voudrais rappeler que man Cheikh ñas je suis un juriste avocat là et je suis très attaché à la liberté de presse et à la liberté d'expression ba tax na amul kenn ci samay journaliste nga nekk ci presse écrite bi rajo wala télé bu mën a wax ni Cheikh Niass mës na ñëw tel jour di ma dicter une ligne de conduite wala une ligne éditoriale mu ne man dama am habitude bàyyi leen ak seen xel ñu def seen liggéey waaye lii représentant état bi wax dé déglu naa ko j'en prends acte ci noonu la ñu yëkkatee jataay bi ba ma fa jógee ma rendre compte président Macky Sall représentant Macky Sall itam rendre ko compte waaye comme ko négociation yi va et vient yi demoon na ba on était à deux ou trois jours de la fin de la sanction alors weer ba daal di jeex euh, Cheikh Niass groupe Walfadjri fekk purgé nañu seen peine entre guillemets jàmm ne ñooy. waaw ba ñu ñëwee ba deux mille vingt quatre ki yore mbirum communication Moussa Bokar Thiam def communiqué bii moom waxuma la ay privation d'antenne dix jours wala un mois ah. waaye daal di xàcc la sanction la plus lourde c'est le retrait de définitif le retrait définitif de la licence alors moo jur coow li mu jur yéen jóg ngeen dem fa manifester seen solidarité ndax seen naataangoo la coow li bari lool euh, Jamra ngi gërëm ñi nga xam ne jóg nañu yëkkati ci kàddu wala sol seen dàll am luñ ci dox parce que ñun wéetoon nañ ci lool et c'était normal parce que bi Sidi Lamine di créer Walfadjiri def naa ci émission bi ma Cheikh Niass invité bi Walfadjiri di célébrer ses 40 ans bi mu ko créé nu Jamra nous avons été les premiers à occuper à travers Abdou Latif Gueye président fondateur du président euh, euh, président exécutif de Jamra qui a été le premier rédacteur en chef de de l'histoire de Walfadjri ñoo bokkoon siège ak Sidi Lamine fii rue sans loi à droite dañu cloisonné woon salle bi ci digg à droite Abdou Latif Gueye nekk fa comme directeur de publication du mensuel Jamra et je rappelle à l'attention des des jeunes euh, Euh, followers auditeurs et téléspectateurs que Jamra avant muy nekk ONG journal la woon et à wal euh, Walfadjri mensuel nekk fa avec Sidi Lamine Niass comme directeur de publication Abdou Latif Gueye de Jamra comme premier rédacteur en chef de l'histoire de Walfadjri voilà kon ñun compte de cette position Walfadjri mënul nekk ci ay difficultés suñu ngor may ñu ñu banque suñu loxo mais suñu yoon nekku ci voilà loo tax nag bi coow li jibaatee ba ñu gàll ci loosu wal fajiri sanction bu diisee ni Jamra ngi gërëm ñu si dugal seen loxo yëpp di gërëm Cheikh Mahi Niass di gërëm société civile à travers euh, Cheikh euh, Goudiaby pa di gërëm tamit acteurs politiques yi ba yàlla dogal tous ces efforts conjugués ont fait que démb état bi retiré na la sanction voilà kon loolu dama ne woon dañ ciy waxtaan parce que Jamra dafa am yeneen action yu mu doon bëgg a def waaye gis nga ci diggante bi yàlla jiitu nañu daal di ci wis ndox mu sedd ama Sénégal ak SIAS tamit dañu amoon yeneen action yu ñu doon bëgg a def yàlla jiitu nañu ba Moustapha Ba le directeur des finances le mise des finances recevoir na leen la semaine passée ginnaaw ba nga xamee ne ba ñu gëjee jot dara yàgg na li naa leen les trois chèques de cent trente millions yi Jamra dox alors recevoir na leen ba à partir de la fin de ce mois de février dinañu mettre en œuvre un échéancier de décaissement voilà ñu di ko topp di ko topp di ko topp ba bor bi jeex voilà moo tax na ñaari ponk yooyu soxlawul ñu di ci attardé parce que ñaar yëpp yàlla def na ci ndox mu sedd kon suñu waxu tey fii situation de tension politique bi dëkk bi toll moom lañu war a wax fii ñu toll tey il faut ñu wax ci saay-saay yi bëgg a prox ndollu ci mission d'observation Euh, des élections te bàyyi ko bitim réew bëgg ci porox ndollu def fii naka si dul noonu loolu tam dinañ ci waxtaan alors euh, point boobu sax ci lay jëkke xam ngeen ne Jamra yàgg na di dénoncer ay ambassade ay ambassadeurs occidentaux qui sont accrédités ici di def de une ingérence inacceptable dans les problèmes sociétaux de notre pays ñu bindoon Macky Sall lettre di sàkku ci moom na yemale ñaari ambassadeur na leen yemale seen place ñu bàyyi di viole seen devoir de réserve kenn ki di ambassadeuru Canada lan la def dafa def benn déclaration waaye def une diffusion très restreinte parce que c'est pas une déclaration publique par voie de presse dafa am ñu mu ko yónnee par email naan waaw euh, gis nañu ne les minorités sexuelles maanaam góor jigéen yi ak lesbiennes yi dañu am des difficultés euh, pour participer à la vie nationale dañu am ay jafe-jafe pour accéder à des emplois dañu am ay jafe-jafe pour bénéficier de financement de projet waaye ñun Canada ñu ngi leen di yëgal na ci ndigalu suñu gouvernement saafaraal nañu loolu injustice boobu ñu teg